mune ne bi wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc lépp luy bëgg a wax na ko seet bu dee lu baax mu wax bu amul tuyaaba mu noppi ne sëñ bi doon na ci waxtaan ne gëm gi mu wax moom ñi fas la ci xol di ko wax ci làmmiñ di ko ci cër mu ne nag ku gëm ne lépp lu mu def mbaa lu wax yàlla xam na ko te it bu taxawee ëllëg ci kanam boromam dana ko fay loolee lépp mu ne ku gëm lii te wóolu ko war nga moytu bu baax lépp luy bëgg a wax nga seetlu ko bu dee lu am tuyaaba nga wax bu amul tuyaaba nga noppi mu ne bu hadis bi ne fal yaqul xayran nay wax aw yiw xamal ne aw yiw mooy lépp loo xam ne day tax a dem àjjana maanaam daal jëpp wax joo xam ne boo ko waxee yàlla mën na la caa gërëm yóbbu la àjjana loolee aw yiw la dee ko wax ci sa làmmiñ aw li yasmut nag ne daa bëgg wax ne ay xani charri ci sa làmmiñ ci lépp luy ay te mu ne bu ñu nee ay acharu mooy loo xam ni amul njariñ baa boo ko toppee sax mën na laa yóbbu sawara acharu ay daal mooy safaanu alxayru yiw alxayru yiw mooy lépp lu yóbboo ak asharu ay nag mooy lépp lu yóbboo sawara mbaa sax loo xam ne amul benn benn njëriñ